do a é, tchau, tchau. nan nga duñu la fi jëlé é e way ma lay way sal ngaari lam toro jaarama bama assene sa dagay ñew fi dama ci contane ndax ñun dañoo fonk touba dañoo bëgg touba amuñu lu touba ku fonk touba dañ lay fonk touba fa kala ma sala soy and da ngay and ak ku jara andal ndax nak immigration yi bari na manam lu nit bañ bañ nit nangul leug leug ay gudd noppam ndax ila touba bi ku ci jaar nak ba dem dakar xam ne nag Touba ilaa Toubaay jàllee ñi nga xam dañoo nekk Dakar du lii ak Touba gi xam ne gis nañ seen bopp ndax tubaar fakkaale président Macky Sall na dafa wàññi luyaas yi léegi nag ñu nuyu sëñ Abdoulaat bu baax di la ziyaara di la wax ni nag ñun moom ñoo ci sa ginnaaw fii moom ñi ngi ànd ak yow bëgg laa jàppale waaw te ñëpp Macky ñun moom Macky rek lan wax ñun waaw. waaw. léegi nag ñu bëgg tamit ku ñu jàppale ndax fii ay jigéen doo nga fi nekk ñu yor suñu njaboot ah war leen a toppatoo war a liggéey. saa dàgg ñi ngay gis maanaam liggéey bi nekk moo ko bokkoon ndax suñu assainissement bi ci miir bi nekk nii maanaam moo ko yoroon lépp lu ñu fi def gis nañ ko li fi Macky Sall def na gis nañ ko. ndax mbir bi bi nga xamee defar nañ ko bàyyi dañ maa wax ne cent lay garanti téeméeri at loolu la ma préfet wax lu mel noonu maanaam bu caaxaan jeexee ba dëgg des kenn mu fi ko fay def kon maanaam bu ngeen ñëwee fii maanaam dana rafetlu rafetlu teewaay bi ngeen ñëw fekk suñuy soxna ak suñuy doom. fii buñ fi ñëwee dañ fee war a ñëw buñ fi ñëwul dañ fee war a ñëw. ndax xam ngeen ne ay dëkkandoo yu soriwul lañ ginnaaw buñ bokkee Serigne Touba damay wax ne ñun nañuy góorgóorlu bay dimbale nit ñi ci social comme ni ñu ko président Macky Sall digale tey bu ma déggee ñu ne waa Touba yëpp dañoo dem teertu ji Idrissa Seck boo defee turne yu ñu def dangay xam ne loolu wax la mais jëf amul dañ leen di wax ne sunu diggante ak yéen danañ ko sàmm nuñ ko war a sàmme li ñuy wax ak yéen fii ñu toll ci àddina ci wàllu communication paase na ñu mën a denc say wax ba ëllëg ñu yót la ko sama kër ba nga ñëwee ni nga ko waxee ba nga egsee dañ laa yaatal nga yéeg ñu wax loolu maa ngi lay sant gërëm la ak mboolem ñi nga àndaloon dégg nañ li nga wax fii ci Guédé ruutu Guédé bii ñu nekk làmp mbedd yi saa yu fay man maa koy taal may fay ñu taal ko xam ngeen ne li ko tàmbalee déeg Dakar ba ba egsi Gede, ba ba ngay àgg kër Abdou xa seigne Bass Abdou Khadir mbollem tata yi man mako don jog diko defar da ngeen ma gis bu yalla ju tawé man may taxaw nek ci yi di dimbale askan yi pour ñu mëna dem kon nak yen yeen wa Gédé seen teertu rafet na surtout naaju tang wi ngeen toog dañu te ay magla mang koy jéglu mo waral bi ma egsee bi ñu ne ma naa toog ci kër gi dama ne du ma toog ci kër ci naaj wi laay toog ndax ay nit mënuñoo toog ci kër naaj di la xaar nga ñëw naan da ngay toog ci kër loolu du jëfi góor du ko def ah li des nag mooy dinaa leen jàppale dinaa leen taxaw dinaa fexe ba nga am ay financement dina ko def muy financement DER muy financement yi nga xam ne man maa koy def na ci sa xel dal li ci des nag mooy dama lay ñaan nga gën a jege équipe bi gën di dik ci ñun li ñi def ñu nga man di jot sa wàll diko indi fi ci askan wi xam nga ne ñun li ñu def ci financement mat na 200 millions ñu dok ci def financement dairy dama jëlale lolu fi ci dekk bi li ñu fi def ci ay programme kenn lu ko wax kon nak ñi ngi leen di ñaan ngeen woteel président Macky Sall mu mëna gagner premier tour fani fani fani fani Vanyim, vanyim, vanyim, vanyim, vanyim, oh, cha, cha. jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége ndaanaan nga duñu la fi jële eh waay maa lay Abdoulaye Seck jox ñu ay financement léegi jigéen ju ci nekk da ngay xëy sangu ba set gàddu sa saak dem ubbi sa place marché toog di jaay te loolu Abdoulaye Seck Sadaga moo ñu ko defal kon nag Abdoulaye Seck damaa bëgg nga xam ne ci na nepp nooy na nepp fii ci sama Boukhatoul Moubarak surtout ma wakaana xan gi ma na nepp eh, soow mi daa weex taal lenn luy ñuul nekk fi ndax yaa fi soow mi dara luy ñuul nekk fi yaa fi nekk na guy ni galaas nooy na nepp ni wateen na honorable ñu lay sant di la gërëm waaye tey bis bii woote wuñu mitin li ñu woote mooy bu xotu gu yëpp ñoo ànd facile laa delloo njukkal ndax bu xotu nee nañ fàtte xajul fi ndax boobu yàggul nee na dañ daan jëlee seen téléphone yi di ko chargé ba marché bu bees di ko chargé bu marché bu tas nee nañ loolu lépp amatul nit ñi nee nañ dañ daa yenu seen paani ndox di wuti ndox ba ñëwee ak sa opération Sadaga mar naan maru naan yaakaar naa 90 pour yëpp mi ngi fi bokkatu waa bokkatu nee nañ man la yow waa bokkatu nee nañ yaa leen